asalaamaaleykum mbokk internet bu Guédiawaye info tey ñu ngi fi nga xamante ne mooy kër grand Daouda Seck bu nee grand Daouda Seck xel yi dem ci le grand champion Balla Gaye numéro 2 moom mu nekk un fidèle compagnon de Balla Gaye numéro am waxtaan bu am solo bu ñu war a séex ak moom grand Daouda ñu ngi lay nuyu di la ziar waye sank cioli bari trop ñi nan modou 9 ans après akri na ben expérience mag na ci côté yu bari bu ko bal upon doole itam bi upp ko doole combat dina wuté mais ñu ñew gis combat bu am ten tay mu nan même ñu faral bal gis am ñom ten tay ñu ko aborder xaw na len bet tay confiance bobu ak ni bal gay ñewé nan ngeen ko wajalé est ce que loolu luñ won la wala lo am ten dafa ñew rek mu bëré adama bal gay mbeur la bis bi mu bëré ak samba le 5 janvier le 2 janvier 2005 daa bëri wax ni de di combats grand combat sax mën naa bëri ñoom muy ëmma seen su lay dopp booba la teg bëtam ci mbër yu mag yi di bëri grand combat mën naa ñii ñii di ñii di grand combat mën naa bëri ñoom nekk ca di wane ne mën Balla Gaye su wéree du moroomam bëri si bëree ak ci lépp xam nga man su may déglu sax léeg-léeg rek damay jàpp benn benn dégg naa benn dirigeant wu Modou Lo mu ne Modou gore moo tax bi mu ñëwee si bot boori saag yi jéeg sekki sekkiwul mais da koo talul da koo talul boobu temps mi ngi yëg loo xam ne moom mi ci géew mi rek la ko mën a wax Balla Gaye dafa bëre ak Gris doo bëre 30 minutes def li mu war a def du ci dellu suñu borom may ko ci ndam ñu xool xam ne nangam ma ko manqué ak nangam bi lii ma ko xañ ñu fexe mu am loolu kenn du ko jàngal bëre ñu fexe mu am doole au passage may nuyu suñu frère Abdou Aziz Ndiaye ci initiative boobu mu jël bi mu ñëwee ni ma grand man ko ma Omar dinañ fexe mu am doole taxaw physiquement bi ma ko waxee sax xalaatoon naa ne xaw na jafe mais alhamdulilahi Aziz ñu ngi koy ñaanal au passage ndax li ma la waxoon sànq ni la géejaway dafa gëm nitu géejaway dafa gëm ku dëkk géjaway Aziz àndam ak Balla dégg na sax lu tax mu bàyyi ko topp na ko comme un frère de sang bu mu bokkoon ndey ak bàyyi jëfal na ko jëf joo xam ne nit dina bokk ak moom nit ndey ak bàyyi te du ko man wallahi azim amul lu ñu wax ne mooy tax Balla Gaye am ndam te utiwu ko si yar si teggin ci mbaax ànd ak moom suñu borom sutural na ko ñun waa Guédiawaye de ñu ngi koy ñaanal yàlla li des ci alalam yàlla bu si ordonnance génn ñu ngi ñaan yàlla àndam ak Balla Gaye yàlla bu si seytaane dugg di ko wax ne moom Aziz na xam ne gaañ Balla Gaye te doo arrière xeer boo yaakaar ne rek suñ la ko sànnee bu ñu yaakaar ne suñu la ko sànnee mu metti la den la ko sànni mais na nga xam ne tout le temps rek Omar sarak la Omar ñu lay wax ni am nga ku nekk fekk nañ la ku nekk mais Aziz na nga ko téye sa frère la ànd nag muñalante rek ci am ma ngi ñaan yàlla seen diggante yàlla bu ñu seytaane am waaw ci kaw loolu grand ma ma des ci combat bi rek parce que comme ni nga ko waxee léegi Balla kenn naataam lewu ne lu bëree kan mm. mais Modou Euh, observateur yu bëri avant combat dañu woon ci côté xeex bi am na pourcentage bu mu ëppalee Balla Gaye am moom moom mun nañ ne xaw na ko kaawte ci ci din part est-ce que ni mu ñëwee noonu yéen bettu leen din part ci de kan moo ko wax li waxal bii observateur dégg nañ ko mel bu dee bu dee bu dee bëree Balla am na lu ko ëppalee waaw Moustapha Gueye ndaanaan la maa koy nuyu au passage nit ku baax la lu wax ci lamb deug la maa moom xëy na bokkuñu gis-gisu lamb xam nga mbeur mi nga xamne dang ko xam ci moins de 15 ans muy jang beure di jang beure ba jégué 30 ans bokul ak mbeur mi nga xam dang ko dang ko xam 10 ans Moustapha gay maa ngi ko jox ci reum ñang koy sant bu baax di ko gëreum nit ku baax la waaye dama wax ne aadama Balla gay li ci moom yàlla ko def dama waxon ci ben ci jamono yu pass ne len Balla Gaye numéro un champion boxeur la li ci Balla Gaye numéro deux moo ko def ci xeex bi waaye bëre yàlla ko yàlla moo yàlla moo Balla Gaye yàlla moo ko moo ñaale ak bëre bi mu njëkk bi mu tàmbalee bëre lañ daan toog di waxtaan naan gars yi sunu waa ji li muy bëre du azam de mu di ko kafe ba mujj yi ñoo xam ne réellement li muy bëre du azam moom dafa fekk dafa fekk analu bëre si mille page mu def ko mille deux def na ci bëre loo xam ne sax daanaka mos am xam nga ne bërki démb lu ne am na waaye bër wet yombul nag na mu def moodu ah jël boobu dëgg jóge boobu si làmb ji te defe na yeneen dafa dem France ñëw may waxtaan ak moom mu ne ma grand li ma fa xamee su ma ko xamoon doo ko dem du ma daanu si làmb ma ne ko ah mun waaye bi mu bëreeg Modou ba pare xam naa ne am na lu bari dool yokk ci moom ñu ngi koy jox nag di ko wax ni ko na fexe ba foofu bu mu fa bàyyi foofu moom moo baax. Mhm. ndax bu loolu weesoo comme ni nga ko waxee rek Balla ni mu bëree bettu leen ndam mhm. aussi bettu leen. ñoom mhm. la diriger combat bi dicté loo am ki nga Lo ba am ci ndam. mais ñu dem ci après combat. te gis na réaction yoo xamante ni tey mun nañu yenn kàddu yi xaw nañu jaar dégg nañ bëgg dem ku mel ni Pambay di nijaay ci Modou Lo nekk coach en même temps. Mm-hmm. ni ñoom jomb nañ di sacrifier ay bakkan pour am ndam. tey wax mm-hmm. jooju yow nan nga ko jàngatee. waaw xam nga damaa wax gars yi ni leen soo bëggee biddante rek fanaanal ak mbër mu daanu lay yi day bari bërki démb bi ma xoolee benn site Modou Lo ni maa ngi sant dara jotuma dama ne alhamdulilahi rabbi alamin billaahi Balla Gaye bokk na ci mbër yi gën ci mbër yi ci xol. gis naa ñu ne sacrifice waaye ku sacrifier nit ku dagg yaramam pour daan ñaari fan après ñu walla nga taxaw bëre te gisuñu si yaramu dagg xanaa kon jinne yi nga ko jox bala xamul loolu ñun bëre la ñuy wax bi ñuy dem stade def nañ lépp lu làmb laaj mais li ëpp solo si lañ def mooy fexe ba suñu mbër mën a bëre am doole tranquille lii mu jëflante ak moom bi muy dem xamoon na ne su arbitre xamoon nañ ne su arbitre sifflé Balla Gaye day dox si kawam duma ko daan ko Modou Lo yu baree bare yu yàgg mooy initiative bii Balla Gaye di doxe la gars yi doxewul parce que motloo ndaanaan la ku baax la may lancer message sax comme ni ko sama benn xarit bi naan sang doon ma waxee rek ni ma ginnaaw ay nag jàmm ginnaaw làmb ji jeex na nañ leen jàmm te bañ a te bañ a ayoo ndax ki ngay ayol tey xamoo si suba si lan leen di fekk te ginnaaw jamono bii ñoom la fi yàlla teg barki dem ba rek dañoo dem keroog ci ci gala bi bi amoon bi amoon teero bi sama yaram dafa daw da dama gis Tyson toog ak ak ak yikini man ku jàmmwul foo jëm maa ngi leen di lancer appel sama ñaar rek lañ nanu jàmmoo affaire bi jàmm rek baax àdduna amul solo bëre nañ daan na ko ñu bëri war mu daan ko supporter bu ñu indi benn haine encadré bu ñu wax benn wax bu ñaaw nañu ànd ànd bu baax ñaan yàlla defal lu jàmm ndax lii kat ndam lii espoir moo si gagné xoolee supposons su leneen amoon fu lamb jëm bala nga su daan woon wàcc lamb ki am ki ëpp doole dàkk bëre su daanoo ngir lan kon lamb day daanu kon lii am nag mooy avantage lamb maa ngi ñaan yàlla defal lu jàmm ñun ñëpp waaw ci kaw loolu grand ba léegi ñu des tamit ci après combat. Mm-hmm. parce que gis nañ ay vidéo yu circulé. man mm-hmm. vidéo yoo xam te dañuy wane yenn aspect mystique wala pratique mystique ni mi ngi ko doon combat. Mm-hmm. am ñu bëri ñoo tamit naam Balla lañ faral mais neen ñu ngi koy ñaaw. yow vidéo yooyu nan nga ko apprécier nan nga ko gisee. waaw man sax ñaawlu naa ko ba waxtaan seeg ñoom mais daf ma ne secret kenn du ko ma xam loolu grand man ma secret kenn du ko génneel li ñu def secret la mais fi ñu doon demit wéetuñu fa dañ fay taxaw ñeneen taxaw fa xëy na ñeneen ñoo ko jël wone ko mais ñun li jomb nañ ko wane te ma xam si ñoom loolu boobu dignité xam naa ne ñoom du ñoom ñoo def loolu te ginnaaw ñoom it wax nañ ne defuñu loolu dañuy damay jàpp ne defuñu loolu rek mais làmb secret la waaw ku ci wane si secret ëllëg ëllëg loolu yaa ko te si bopp làmb secret la mais lii sama rakk wax ni ma ñun jomb nañoo def loolu loolu laa gëm xam naa ne defuñu ko ñi ko def bokkuñu si ñun ñooy yàqkat yi rek. Mm-hmm. waaw mais dëgg la mais dafa doon loo xamante ni yombul nit daal ciy accéder parce que doon na secret yi gën a sori ci mbër waajtaayu misigam nekkul ku nekk moom la tëb daal ciy jot. du lépp tëjuwoo sa nekk Balla li mu def dara génnu ci ndax Balla Gaye am na yu mu def yoo xam ne biir néegam la ko def ak biir këram la ko defee kenn fekkewu ko mais soo demee foo xam ne moom ko doone su may def lii kenn du ko fekke yeen balagay ngay seen rek mais mën naa monde bu bari ngi seen ginnaaw toog daaw balagay Gaye nag moo ñëw def li mu war def dem yoonam mais dafa am ñoo xam ni bëgguñu lu nit gis kuy def ba ñu filmer ko moo tax maa ngi ñaan yàlla maa ngi ñaan nit ñi rek ñu xam ne nit ñi ñoo ñu xam ne ñun ñëpp benn lañ kenn bay yàqal sa bopp xam naa ne daal Balla nit ku baax la Modou Lo nit ku baax la bëri nañ balagay daan ko ñu bëri wat balagay daan ko loolu mooy lu sport maa ngi ñaan yàlla Modou Lo su amatee combat yàlla may ko ndam bu ñu yàqoo defet day yàq mbër mu daanu rek su amul sens staff bi nga am lépp day dem bëri nañ daanu te daan daan nañu muñ lañ daan daan te xool seen kanam di ñaan yàlla yit yàlla defal leen jàmm ba lu ñu am combat bu ñu amati ñu am ci ndam waaw bu loolu weesoo ñu wax ci li nga xamante ni mën naa ni moo gën a waral coow li après combat mu soxla bi nga xamante ni Aziz defoon na ko après mhm, combat bi mhm. ni moo fay ñaari mbëri ku nekk euh, cent cent millions mhm. waaw daal di tëgg combat bi ba sax am benn réaction ba am te ni Pambay def na ko tamit di ko sànni xeer ni Sénégal bëri na ñu bëri ñu naan kilifa mais li ñu yor moo tax mais seen comportement ak seen xel doyul ñu leen wooyee kilifa loolu kàddu yooyu nan nga gisee tamit waaw bi Aziz wax maa ngi taxaw maa ngi doon téye micro bi di ko wax di naan ko def nga lu ëpp loolu sax waaye jarul wax xam nga Aziz nit ku baax la xale la ay atam bariwul suñu borom moo ko may nit soo àndeek moom mu def ñaar fukki mbir ba fukk juróom-ñeenteel bi am loola ci met da nga koy muñ ñun amuñu dara lu ñu met ci Aziz Aziz tëggul làmb ji ne doo joxuñu avance biram ñig xam na ne Aziz joxuñu avance ñun nag dama bëgg ñu xam ni lii fi am yàgg na fi Modou loo Modou Lo ñun ñëpp xam nañ ni ne ni ko promoteur am la woon Aziz na buwul Balla Gaye àndal tëggul li mu wax ne tëggul gëm naa ko mais Balla moo weex donc fii lañ toog ñu ni Siteu mi ngi xër mën loolu kenn waxul fii ñu toog nii <clears throat> Papa Sow mi ngi fa kenn waxul ñu ne li ki ni siñoon ma ngi fa kenn waxul góor a soog franc te pourtant fi la bàyyi ay waa kiréem kenn waxul mais Balla il suffit que rek ndam daal moo mel noonu soo amee ndam lu ne da ko dégg mais maa ngi wax ne rek nañ may jàmm te yàlla defal ñu sutura ndax ndax Aziz moom lu baax donc ñun ñun waa Guédiawaye yëpp dañu koy sant ndax bi làmb ji tañee moo ñëwal boppam téel ko boppam ñu bokk jóge fa ànd ak magi Guédiawaye yëpp waxtaan seeg Alioune Sall le maire euh, le maire des maires mu taxaw mu dooleel nu def si làmb ji loo xam ni nun duñ ko wax fenn waaye def na ci lu benn lu nit mu sa def si làmb géejawee nag loolu yàgg na fee am ndax leader yi fi mu sa nekk yépp it daan nañ ko defal Balla Gaye kon ñu ngi sant bépp leader bi fi mu sa nekk waaye làmb ji moom ñu ngi sant Alioune Sall bu baax di sant gaañi ñi gën ñu ñu dooleel ku mel ni alin jow Moussa Fall Andaw Pape Mamma di sant Bachirou Ndiaye CC bu bu Aly Ngouille di sant monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye ndax dafa bëggal Balla Gaye boppam jàppale ko doomoo ko ñu ngi koy sant bu baax a baax ni ngi sant képp ku jàpp ci bis bi di sant suñu bokk yépp xanaa xamoon ni làmb dafa metti si ñun ñun ñu nekk ci touche yi dafa metti si ñun ndax wallahi azim su Balla Gaye signé suñu bokk yépp signé fu ne lañ may woowee ci àdduna fu ne lañ may woowee ci àdduna am na ñoo xam ne loo leen wax ci Balla Gaye ñu def ko am na benn xale bu ñuy wax moto laa nekk Brésil Talla sàmb Baye Mor itali ñooñu ay nit lañ yoo xam ne Balla Gaye daf leen jaral bay Mor Espagne deug gaddu Balla jaral na lu nek te ban na ci ay ño xamni ni ñu leen lim gala su rek ay kon day wote ku dégg bu ci grand lo leen wax lu ñu def na ngeen tey na ngeen dal comme comme ni daan am rek ba tax na ñun ñu ngi sant yalla di julli si yonent bi di sant bokk yi wax nag yombul di sant bay Balla taxawaayam rafet di sant waa kër Baye Alé Ndiaye dale ko ci Baye ale Ndiaye Masata Baye ñoom njaat seen taxawaay rafet na fekk nañ ñu nu wéer ci làmb ji ñu taxawuñu maa ngi koy waxtaan ak benn waaye Aziz amul leen loo naan ko suñ ko defee am ndam luy jóge si poche te du ko def ngir bëgg ñu am ndam di wax nag ginnaaw làmb jeex na nañ bennoo nañu rafetoo nañ ànd bu ñu bu ñu noonoo Modou Lo def na li ko war mook ay bokkam ak lamu yaakaar bokkam ak la mu yaakaar suñu boroom dogal na Balla Gaye am ndam am na sama benn xarit bu ñu wax Moussa Fall su ma ñu ne ko Moussa sar sàngam mënta ñàkk de moom nañ dama def ko mooy Moussa Fall sa kees amuñu benn instant boo xam ne rek jaw xoolal jaw làmb ji dafa mel ni rek moo doon bëri son na loolu yàlla moo dogal ma bëgg lamb bu baax bëgg géejawaay ndeysaan yàlla na ko yàlla daw sutura mooy jaw benn sama mag la sama xarit la maa ngi ñaanal ñëpp jàmm waaw justement ci kaw loolu rek grand balaa ñuy terminer instant ñu daal di wax ci avenue Balla ci làmb ci. Mm-hmm. parce que monsieur dafa mel li mu waxoon lay bëgg a dëggal nit ñi bëri ak moom mm-hmm. dégg nañ ñu jël na Modou Lo seen combat taxaw mm-hmm. ah, bëri na affiche yu bëri yoo xam te ne euh, ñi nga xam te ne dañoo bëgg làmb ñu ngi koy plébiscité mais wala nga gisee avenue Balla ci làmb avenir Balla Gaye mooy fexe ñaan yàlla yàlla may koy wér ba mu daan ñëpp ndax ñoom ñëpp moo leen man dama ne bari na ñu dëkkul Guédiawaye te bëgg Balla Gaye ndax ndax qualité mbër la moo xam ne soo dee amateur da nga koy bëgg ci bëre ba ci tuus ma ci xeex ba ci fulla ba ci doole ci doole fulla làmb képp ku nekk amateur même soo dëkkul Guédiawaye amateur du écrit yëpp bëgg Balla Gaye man kérok sama yaram dafa daw ndax bima ma bima bi parcel jugee stade parcelle laa jaay ba géejawee dañuy tàccu loolu sport rek ko man ma ngi àndoon nak kérok monsieur le maire Ablaye Mbaye muy adjoint au maire Alioune Sall man ko li de sport rek ko man sport do nga man dé té loolu sudul won am kon maa ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla def si réew mi jàmm na ñëpp bennoo te xam ne jàmm gën lépp. léegi bàyyi nga tàggatoo la fin mooy sant ñëpp sant yàlla julli si ant bi di gërëm Balla Gaye Balla Gaye ñoo ngi koy gërëm ndax suñu boroom moo ñu boole muy suñu rakk muy suñu rakk jox ñu cër bi <clears throat> gars yi ku am am jikko mais su ma ñëwee. su ma ko jubee rek mu ne xasaayit ree xasaayit la may woowee su ma ñëwee wax ko li ma bëgg a wax di ñaan yàlla di ko wax moom Balla Gaye ginnaaw ay jàmm ay sax mu fay am nañu fexe ba ginnaaw làmb ji mu xëccat ay rakkam ay magam ay am di jàmmam gën a defaraat école bi gën a dëgëral école bi ndax Guédiawaye moom école bi moom mooy kilifa gi nañu fexe ba ñu dugal kenn suñu diggante yàlla na yàlla jàmmal nu di wax ni <clears throat> maa ngi lancé appel si loo xam ne sax bokkul ci lii ay waay géejawaay nañ bennoo géejawaay nañ bennoo bu ñu topp benn leader bayante nañu bennoo bu ñu waxante lu ñaaw bu nu waxante lu bon nañu bennoo maa ngi lancé appel si képp ku dëkk géejawaay foo mën di bokk ci politique bi loo mën di wax na doon lu rafet rek allahumma salli ala sayyidina muhammad sallam di wax ni nak wa gejeme efo fo parana waye pare na ndax dañu genn ci modlo Lo uti ci eh, uti ci Boy Niang numéro 2 loolu mom benen affaire la sunu mbeur laj da Guiers tàmbali mang koy wax ngagn ngagn mi wat xale mang ko koy wax sank nugo ko amatuñu benen gis-gis léegi loolu ñaan yàlla jàppale ñu si kàttanu yàlla yàlla dooleel nu ñu àndandoo bennoo waat ba daan ba daan suñu rakk ji nag booy ñoŋ sama rakk la sama rakk la ndax keroog bi mu daanee saakees daf maa fekk si kaw nuyu mu ne ma grand yow yaay magu mëri ji yow magu mëri nga yow waroo far fenn sama yaram dafa daw waaye nag ginnaaw nag fexe nañ suñu borom kàttanal na la ci kàttanu yàlla ba nga am juróom-ñaareen damu géejaw may ñu ñu mos ñu nit nag may ñu mos tuuti ah banyak, Niang maa may ñu mos tuuti jot na. waaw justement kon loolu mooy andi waat ubbiwaat benn waxtaan. parce que Boy Niang comme ni nga ko waxee sonal na waa waaw ñu bëri ñu ñu bëri def benn constat tamit ni combat bi Guédiawaye dafa war sonné la mobilisation. te ñi nga xam te ne tey ñoom nekk ci ginnaaw Balla Gaye numéro dañu ko war a accompagner. puisque vers la victoire. ci nga addu kon jot na nga xamal ni la de ñi nga xam ci ay. nañ pour ngeen pour ngir mu am ndam ci waaw ñun de moy suñu yene amna ben benn kilifa gu ne de guerre suma xamul sax dina ko jappalé su bëggul sax dina ko jappalé ndax nak boy ñang wax deug yalla nak way mi ngi bëgg jéxal ko dagan na mais lepp rek na am ci espoir am ci jamm ndax jamm bi gëna a géejaway jàmm rek fi xaj ñi ngi lancer appel ci képp ko xamné andon nak ñun bañu paré ci modlo nga kon daan boy ñang ndax géejawaay au moins làmb judduwaat fi dama bëgg ngeen xam ni laaj da ngeen benn defet la am te Eumeu Sène le roi des arènes alxuraan di leen bëggee nag ah di ñaan yàlla géejawaay info ca kanam di leen wax ni comme ni ma leen ko doon waxee sànq na ngeen fexe ba seen micro bu si kenn wax lu ñaaw ndax lu ñaaw baaxul na ngeen sax si lu baax di gërëm suma bokk yi toog fii di gërëm mar sama rak mot sek musa mi tok ak sama soxna yi di gërëm bokk yi di ñaan yalla defal nu jamm yalla nako yalla def ci si barke Moustapha jëne ngeen jëf wa bokk internet yi loolu mo doon waxtaan bu am solo bi nga am waro nañ ko ak grand daoudou sek euh, mu doon waxtaan bu am te tay yaakar yaakaar ni doon na waxtaan bu plaisant parce que exprimer wu ci suñu micro na ci suñu micro généreusement ba pare mu doon waxtaan mom tamit def nañ ka cœur ouvert vraiment loolu moo doon li nga xamante ne moo di leen jox dig daje prochainement di gërëm di sant suñu technicien ko nga xamante ne maa ngi koy duppee l'autodidacte Bécaye Koundoul ñu ngi koy sant baax di ko gërëm